ñu ñëw rapidement ci affaire Cheikh Niass daal di recueillir li nga xam ne moom mooy témoignage yu mbokkam yi nga xam ne moom fi teew ndax am na lu bees ci mbir mi donc euh, tungu ne du teew ñu nataal dañuy bàyyi kàddu gi ñaar ñi nga xam ne ñoom ñooy membre famille ñi fi teewal famille Cheikh Niass kii jëkk a jël kàddu ko góor ki doomam la Khadija Niass également mi ngi noonu toog donc euh, Cheikh Mbourane Niass moom mooy doomam bi daanaka mook papa ji ñoo bokk tur sa ah, moom mooy turandoo papa la euh, su ko defee kon ñu bàyyi la nga nuyoo après nga wax ñu lan moo bees ci dossier Cheikh Niass asalaamaaleykum maa ngi nuyu ku fi teew askan bi ñëpp kii man la doomu Cheikh Niass maay taw mu góor c'est que ñun sama kaw papa gars yi nu ñu ko banaliser après enterrement bi kenn waxaatu si dara justice deful yoonam ñun loolu moo ñu fi indiwaat à part tamit jàmm bi jàmm bu doon fóot yére xam nga yére yére yu mu soloon jour kii bi da cay gis ay tache cicatrice mhm. cicatrice yoo xamante ne ay kii la. maanaam yére bi Cheikh Niass soloon. yére bu mu soloon waaw bi ñu leen ko indilee da ngeen ci gis ay ay ay cicatrices. ay cicatrices ay waa deret daal. ah moom mooy nekk nii moom la ñuy seetaan nii ah. ah yëre bi moo nekk nii dafa am deret ak ay marque marque dóor daal. ay marque marque. ay ay traces yoo xamante ne comme genre dóor daal. ok si yëre bi. ci yëre bi. Mhm. loolu lañ indi woon pour yaatal ko fii te ñun tamit. affaire métti nañu loolu ndaxte. waxal ci micro affaire métti nañu loolu ndaxte. gars yi ni ko banaliser ba tey kenn waxu si ci dañ ko nar a bàyyi mu romb nii ñun loolu la ñu métti. ba tey amul justice donc image bi ñu seetaan ni mooy yëre Cheikh Niass bi ngeen wax ni yor ngeen ko gis mu takk ay deret am ay strass dóor mm-hmm. ok image bi mooy yëre bi donc lii moom élément nouveau la bu bees la ci dossier parce que jusque là gisuñ ko woon ah élément bu bees la mm-hmm. voilà jox kàddu bi sama tante léegi lu jëm ci wàllum euh, kii bi lu jëm ci wàllum euh, autopsie bi autopsie bi waaw mais autopsie bi moom bu mu génnee dañ d'accord ngeen ci lu autopsie bi wax non d'accord uñ ci lu tax ndaxte sama bu muy ñëw moom def na formellement test corona bi test corona bi kii woon dafa kii woon daal positif dafa négatif. dafa négatif bi ko defee bu mu fii mais. gars yéen a àndoon bi mu koy def. Hmm? yéen a àndoon bi mu def. non bu mu ñëw fële France la ko def. ok mu ñëw bu mu ñëwee ba fii ñu ne dafa amoon jabet. Mhm. sama papa man mosul toog ne ma daa am jabet ñu ne jabet beeg corona bi man moo ko rey. loolu noonu moo ko te ñun moom d'accord ñu si formellement moom d'accord ñu si. d'accord Khadija un complément lan nga ciy dolli par rapport ak élément nouveau yi mi ngi wax euh, jot nañu yëre boo xamante ne dafa takk deret am ay euh, trace d'or contesté également li nga xam ne moom mooy résultat bi autopsie bi génnee parce que mi ngi wax ni def papam jotoon na def euh, test corona muy wane ni négatif na maanaam amul corona autopsie bi bi génn wax ni corona moo ko rey. waaw man maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant ñi ma fekk ci plateau bi ñëpp waaw man maa ngi tudd Khadija. maak Cheikh Niass ñoo bokk ndey ak baay maa topp si moom. Mhm. mu nekk nag affaire bu metti boo xam ne kenn mënu koo fàtte te liñ ci war a taxaw taxawuñ ko ci yoon defut liggéeyam ba tey ba tey nii tooñ nañ ko def ko lu metti ba mu ñàkk ci bakkanam ci anam bu doy waar te mu waroon a bañ a am parce que dañ ne fii réewu Sénégal Cheikh Niass doon def lu mu am day daw indi Sénégal parce que dafa bëgg réewam. tey réewam tey fii la lii amee tey réewam ñoo ko def nii tey mu ñàkk bakkanam mu doon anam bu doy waar parce que sama yaay moom kese la am ti doom bu góor tom papa dafa teel a génn àdduna mu metti woon trop seex nekkoon jàmbaar nekk gaynde nekk benn góor ci yaayam ak ci famem ñëpp nekkul bakkanu seex ñas kese la ñu yóbbu de mais bakkan yi ñu lor moo bari parce que seex ñas du doon dimbali képp koo xamante ne nii bokk nga ak moom kum xam ak kum xamul bi ko alkaati boobu di jàpp maane dafa doon jëli paas meeru koñ bi di ko xaar pour mu may leen paas pour ñu dem màggali mu arrêté ko ci kàttaay gi kii la àndaloon ak chauffeur bi kii dem jëli ko bu mu indee bagage yëpp bu mu ñëwee xool nañ ne oto bi amul benn problème mais danguñ ko bàyyi dañ ne kii dañ koy yar dañ koy wan yoon dañ koy nëbbu jant bi alors que def nañ ko parce que mu ngi nii def nañ ko am na loo xamante ne ni rafetul fii ci réew mi ñu ni ay sénégalais lañu ay jullit lañu boo waxee ñu ni Sénégal dëkku lislaam temps ñu baax ñaa ngi fi tëdd mais li am Sénégal Sénégal rek la am amul fenn mu doon lu metti trop loo xam ne kenn du ko fàtte quarante trente neuf la am sama teelu yaay sama sama taaw yaay dafa teel a génn àdduna xam nga moom tamit gis nga la même chose que ni fi mu nekk nii kër ga man ak sama yaay ñoo fi nekk ak kii sama yaay mag la. wérul sax wér gu yaramam mayu ko ko parce que waroon na ñëw ci émission bi teewe ko mais mu nekk lu metti loo xam ne bëgguma ci sori parce que sama xol bi dafay tooy d'accord léegi bëggoon nañ aussi nga wax tuuti ci yére bi nga xamante ne moom mooy yére Cheikh Niass bi ngeen jot yére bi ban moment ngeen ngeen ko jot avant denc te ko parce que dañu dem armée li ñu ne 6 dañ koy tëj jour boobu maa sama yaay ñoo ànd nekk ci morgue bi bi ñu demee ci lañ ñu jox yére bi mais gisuñu ko woon jàmm bi ko doon fóot nag bi mu ko fóotee dugal ko ci kii bi gis deret ji parce que lii ci ginnaaw la Mhm. Ah, ci ginnaaw yëre bi moo nekk lii ay marque liif la. yëre bi liif liif yu ñu dóor. ku nekk da ngay wax sa traayu bàmmeel nekkul mu nekk sama frère moo tax mhm. mais damay wax li am peut-être bu ma ko indi woon fii ba ngeen gis ko di ngeen gis ne ay marque marque dóor la ay liif benn la parce que moom lañ photo nii quoi. voilà mu ngi nii yëre bii avant ñu ne def nañ seen autopsie la. avant autopsie. avant autopsie c'est bon à préciser. parce que yére bi la deewee xam nga autopsie dañuy xotti yaram bi ak yu nu mel bu doon après autopsie bi ñu ne kon trace su xotti yaram bi moom moo tax. mais booy dugg mais avant autopsie bi ngeen ko ngeen ko jot. ok kenn du fa dugg di sol yére. Mhm. lii avant autopsie bi la peut-être yàlla moo leen weer parce que ni ko saxañ saxañee waxoon na leen ko Cheikh Niass la sant ñu dëkk Kaolack ku nekk xam na Kaolack Mambaay moo fa nekk peut-être Mambaay mooy leeral mbiri rek. parce que lépp ci moom lañ ko teg Cheikh Ahmed Tidiane Chérif moom la ko sam papa daan woowee. Mhm. mu bàyyi bébé bu am 9 ans ak ku am 4 ans xale bi ba tey mënul gëm ne papa ji dafa dee chaque jour day woote ne nañ ko paas papaam téléphone papaam lu tax nangu koo jël téléphone. ku nekk da ngay xool loolu wi mënoon naa bañ a demee nii daal wax dëgg yàlla mënoon naa bañ a demee nii. parce que ndaw la woon léegi bi ngeen jotee lii comme parce que lii lu bees la ci mbir mi bi ngeen jotee lii naka ngeen def ndax da ngeen ko jox seen avocat mu boole ko ci dossier bi wala naka ngeen doxalee lii bi ñu ko jotee comme que dëj bi ak période boobu affaire yooyu coow li bari woon na lool moo tax ñu ne nañ bàyyi ba coow lépp dal parce que boobu média bu nekk mu ngi wax mhm. mais ñi ko jege ñooñu rek ñoo mun a wax ñoo xam li xew muy ay famem d'accord lii ci la génn muy t-shirt bi ok bi ñu ko tàllalee xool ko Mhm. avocat bi gis na ko maître Clédor Ly ok ñëw na ba ci suñu kër jaale si ñu wan ko ko mais loolu doyul dañuy ñëw pour xamal ne suñu naqar mu ngi ci suñu xol ba tey jeexul te du mus a jeex. d'accord alors Djibi yow yaay facilitateur bi ndax mën nga am complément booy def par rapport ak ci li ñu wax. voilà tënk nañu wax ji li ñu wax. salaamaaleykum maa ngi nuyu audi euh, téléspectateur Walfadjri euh, di ñaanal suñu papa Sidi Lamine Niass euh, yàlla na ko yàlla xaaree àjjana. Mhm. di remercier waa groupe Walfadjri di remercier Papa Ndiaye émission bi sens bi mu am nga xamante ne ci wàllu xeex justice la di remercier monsieur yu baax yu fi nekk ak les victimes euh, man nag bon nii la ma yàlla bindee yàgg naa dox ci euh, sénégalais boo xam ne am jafe-jafe pour ñu jàppale ko famille bi euh, boo xoolee Cheikh Niass mooy taawu yaayam moom rek la am aussi euh, ñu toll ci màggalu Touba mu jóge France ñëw fii pour màggal si. Mhm. ñu arrêté ko pour ay problème mu carte grise yooyu defeere ko imam euh, avant ñu koy defeere imam bàyyi sax tardé jumaa ñëw ñaan may ñu ko njëkk mais ñun jëluñu woon police sénégalaise pour mu ñuy reyal ay citoyen sénégalais surtout citoyen boo xamante ne souteneur de famille la ba pare di jàppale ñeneen donc mbir mi niñ ko gisee nii daal jaarul yoon moo tax dañu taxawal beneen mbir muy benn fédération boo xamante ne les familles victimes ba samedi bii di ñëw le vingt mu jour bu nga xamante ne mu la Cheikh Niass di am ci suuf quarantième jour yi nag am na euh, lu ñu war a def ca kër gi ñun ak famille victime yi di waale en passage famille Samba Sarr euh, euh, ma ma ma Souleymane di nuyu aussi sama grand Thiam bi nga xamante ne mooy nijaay ak porte-parole Ibrahima Mbaw mm-hmm. waxtaan nañu ñu ngi def suñu collectif di ci oo sénégalais yëpp di ci oo ñi nga xamante ne vraiment ay nit yu baax lañ ay jullitu yàlla lañ le 20 samedi pour ñu daje kër Cheikh ñas comprendre nga dinañ fa def euh, loo xamante ne vraiment pour dëgg gi feeñ daal parce que justice bi tegootul ci fi mu war a tegu. d'accord alors euh, mi ngi wax léegi lu jëm ci wàllum euh, preuve bu bees bi ñu am mooy yére bi taq deret ak ay traces su lif ngi wax également lu jëm ci Covid bi parce que autopsie dafa ni corona moo ko rey. moom doomam Cheikh Niass nee na ba ñuy ñoo àndoon dem dafa ba muy def dem test bi dafa négatif woon te xanaa bu amoon corona dina ko wàllu doomam ji mu nekkaloon wala wam wàllu famille mais loolu yëpp kenn détecté ko également par rapport ak deux yooyu. waaw xam nga sërëm bii ko jege li mu wax dafa leer Pape kii expliqué na lu leer yére bi tax a deret xam nañ ne kuy dugub labo doo sol yére benn pour autopsie ñaareel bi doom ji wax na lu leer. aéroport euh, Blaise Diagne gisuñu euh, euh, foofu balaa nga jaar nañ la testé France balaa faa jóge nañ la testé. Hmm. affaire Covid amul ci famille bi amul ci entourage bi bon nañu wax li am quoi. ok nañu wax li am quoi te bii rek du victime bu doon benn la sañu kii léegi nag ñun li nga xamante ne dafa nar a continuer ñuy rey nit ñi comme ay kaña surtout nit yu am valeur te justice ñu koy wax chaque jour te justice. duñ ko mën a gis léegi dañuy organiser benn cadre boo xamante ne pour lor yi bañ a amati. question loolu daal laa amoon lu ma ci waxtaan daal. waaw waaw Pape am na question bu ma bëgg a laaj. non kii laa bëgg a laaj euh, doom ji. Mhm. Cheikh keroog yéen a àndoon euh, ba moment bi nga xam ne euh, policier bi arrêté na ko di ko contrôler yéen a àndoon. diggante bi ngay dem kër ga di seeti carte grise bi ah bi ngay dellu si ban état d'esprit nga fekk sa papa. ñoom man maa ko fekkoon si biir kii bi si biir gris bi. ah fekkatoo ko foofu ci ci ci tali bi ci biir gris bi nga ko fekk. non dañoo ànd ba police. bu ñu àndee ko mhm. da ngeen ànd ba police. Mhm. nga soog a fa jógee dellu dem kër ga di uti carte bi. mu àndee ba police man si biti laa toogoon. Mhm. léegi toog naa fa lu mot 30 minutes gisuma ko après si laa dugg si biir bu ma ko duggee nag. ci laa ko gis si gris bi mu ne ma seex demal kër ga nga jëli carte grise beeg assurance léegi nag man si laa jël génn jël taxi dem kër ga jëli ko carte grise beeg assurance. donc moment bi ñu koy arrêté ba coow li ci am yëpp. yow seede nga ko. man seede naa ko euh, diggante boobu. qu'est-ce qui s'est passé lan moo xew diggante sa papa ak policier bi ko arrêté. policier bi da ko laaj kii nii carte carte grise oto bi la ko laaj. Mhm. mais moment boobu sama papa yorul woon carte na ndax carte grise si mhm. sax. si biir carte grise foofu la ko bàyyi woon léegi nag policier bu nga ko laajee moom heure boobu yoru ko woon nag léegi nag sûrement noonu foofu noonu lañ doon wax ñuy négocier noonu ñu doon négocier noonu après policier bi jël permis bi daal te bindalu ko attestation mu génn dem mu génnee dem sama papa génn jël portable filmer ko mu ko filmer pare nag. Mhm. léegi nag agent bi arrêté beneen taxi ne ko topp ma police yóbbaale permis bi léegi sama papa yegaat si kaw oto bi taal ko ñu dem ba police bu ñu demee ba police caabi oto bi man la ko jox. ma nekk si biti moom ak agent bi ñu ànd dugg si biir bu ñu duggee si biir euh, quelques minutes après agent bi ñëw nangu caabi si man ne ma jox ma caabi si laa ko jox mu dugg si biir bu mu duggee man toog naa foofu presque ay 30 minutes gisuma sama papa génnaatul léegi après duggee si biir bu ma duggee ma gis ko si biir grille bi ñu tëj ko si violon bi après la ma ne demal kër ga nga jëri carte grise beeg assurance bi si laa jël kii jël taxi man ak chauffeur bi ñoo ànd dem ba kër ga ñu ubbi bagage yi foofu la ñu wër carte grise assurance génnew bu ñëwee bu nga joxee agent bi agent bi dañ daf bu mu xoolee papier yëpp lépp lañu delloowaat ñoo delloo lépp lañu delloowaat après si lañ ne ñoom xaw ma si lañ ne ñu toog xaar bu ñu toogee xaar nag si ko génnee dugal ko si salle d'enquête di ko jaabante loolu noonu si salle d'enquête bi genre bi après ñuy xaar yàggul tuuti seen dégg ne dafa réew dañ koy defeere xam kii bi dossier bi dépassé na seen loxo egg na si procureur. loolu ci am bi mu gaañoo. Mhm. est-ce que yéen jot ngeen téléphone portable bi. non jotaguñ ko ba tey. jotu leen téléphone portable. non non. Mhm. waaw est-ce que bu dee amul. tribunal est-ce que dem ngeen tribunal ñu leen police sele téléphone bi yóbbu na ko tribunal. tribunal. non bu ngeen demee police demu leen police laajte téléphone bi. police non dem nañ fa laajte téléphone. ñu ne leen la mais téléphone bi ne loon si ñoom nee tribunal ah. la nekk. ñu ne mu ngi tribunal. jox nañ leen numéro PV bi. noonu non amu leen numéro PV bi. non waaw lijjanti leen numéro PV bi kon. <laughs> d' accord alors laakaar naa ne loolu moom leer na message boobu la ñu bëggoon bu ñu bëggoon lancé. bu dee amul d' autres des ci côté experts yi je crois que xam naa di dinañ ci ñëwaat ah dinañ ci ñëwaat am na leneen lu ñu ci war a leeral jotaay bii di ñëw euh, mais dañ koy bàyyi noonu rek ba bii di ñëw ah ji bi. waaw ba incha allah mardi kon on se donne rendez vous di ñëw pour leneen li ñuy waajal. li ñuy waajal mardi bii di ñëw. waaw non bu bu ko annoncé <laughs> bàyyil noonu rek d'accord d'accord <laughs> bàyyil mu sedd bàyyil mu sedd mbir la mbir la bàyyil noonu rek mu sedd mais nag ñoom il faut ñoom it kenn ci ñoom ñëw ah waaw effectivement noonu lay demee dañ dañuy dañuy ñëw non il faut kenn ci ñoom ñëw parce que tamit mhm. Pape euh, dafa am ay faits yi nga xam ne tamit il faut que sénégalais yi xam mhm. parce que tamit kii li mu wax lu am solo la nee na papam dafa doon filmer mhm. scène bi te jotuñu téléphone bi donc bëgg nañu xam contenu film boobu lan la lan moo ci nekk lan moo nekk ci film bi hmm. waaw nit ñi ils ont besoin de savoir effectivement waaw à partir seulement de ce moment nag nañuy mën a déterminer lan moo indi cause hmm. ba soit foofu bu dee foofu nañ ko violenté lan moo indi cause violence bi et tout donc c' est à partir de ce téléphone là ci la ñu mën a mën a mën a kiyee bu ñu effacé wul données yi film bi maanaam agent bi dafa jël ay papier te attesté wu ko mu génnee téléphone parce que mënutu amul xamul immatriculé mënu ko kii mu koy mu koy filmer pour xam ne kii moo jël sama pièce. moom loolu la ko parce que mu ngi doog a jóge France. Mhm. du film boo xamante ne ñeneen la jël quoi cest à agent bi la jël quoi agent police bi. ok waa loolu la quoi d'accord de toute façon on se donne rendez-vous mardi prochain. pour pour pour leneen ak leneen lii ñu wax nii moom dinañ ko gën a xóotal jotaay bi di ñëw ah. voilà dinañ ko gën a yaatal waaw askan aussi dama leen di wax. quarantième jour yi samedi la. samedi samedi am na loo xamante ne collectif famille victime yi. Mhm. Euh, dañuy daje. boo Kër Cheikh ñas vraiment di ci owaale képp koo xamante ne citoyen bu baax nga. Mhm. soxla nañ sa soutien ngeen ñëw foofu samedi pour quarantième jour u ñas parce que doomu sénégalais la. Mhm. te si ñun la bokk te dañ ko war a taxaw. loolu daal laa doon ñaan askan bi. jërë ngeen jëf merci beaucoup kon Cheikh. yaa Khadija maa leen di xaaral mardi di ñëw.